Euh, bokki jullit yi di ñëw ak yéen ci suñu juróomeel ñeenteel bi tomb ci seen émission Shukran bi ñu leen defal ci dakar mi midi point net di sant mbokki internet bi yépp ñi nga xam ne ñi ngi ñuy topp ci jataay bi fu ñu mën a toll di leen ñaanal yiwu yàlla fu ngeen nekk yàlla leen fa fekk di ñaanal bokk yi nga xam ne ñi ngi ci diaspora bi di ñaanal bokk yi nga xam ne ñi ngi ci biir réew mi ak li ko wër fu fi waay mën a nekk rek xéewalug yàlla soriwul yàlla na la fa fekk di gërëm bu baax it nag suñu kilifa moom mi nga xam ne moo ñu yombalal waxukaay bi bañ mën cee jot yal na yàlla àggali mébétam ci lislaam àggaleel ko ko fi mu ko bëgg a yóbbu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ak barke shahru ramadan al mubarak tey nag ñu ñëw ak yéen ci suñu ngëneel ci weeru koor ngëneel yi weeru koor ëmb euh, mbokk yi bokk na ci yenent bi waxoon nañu ne biñ ciy dugg man qaama ramadaana imaanan waxtisaaban xufira lahu ma taqaddama min zambihi loo xam ne boo ko taxawee sa kem kàttan ci ngëm yàlla yàlla jéggal la say bakkaar loolu ngëneel ya ca nekk kenn xamul nu mu toll te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk ci li mu ñu jàngaloon mooy daf ne woon law taalamu ummati maa fi ramadaana la tamannat an yakuna shahru assanata kulluhu yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na bu sama xeet xamoon li leen yàlla dencal ci biir weeru koor nee na danañu ngéejoo sax mu doon at bañ a doon weer kon mbokk yi weeru koor foor na mu làq nag ay ngëneel yu bari bi ci jiitu mooy yërmande joo xam ne yàlla dina ko xool jaamam ñi te yàlla waxoon ne wa rahmati wasiat kulla xadabi sama yërmande mu ëpp doole sama mer ci yéen bëtu yërmande boobu nag moom la yàlla xool xeetu sallallahu alayhi wa sallam wi ci fukki fan yi yërmande jooju ci yàlla def nag yàlla bu mu ëmb euh, defal ñu ci it fukki fan yoo xam ne ci la ñuy jéggal suñuy bàkkaar te yàlla waxoon ci alquran ni istagfiru rabbakum innahu kaana gafaran yursili samaa alaykum midraaran wa yumditkum bi amwaalin wa baniina wa yajcal lakum jannatin wa yajcal lakum anhaara yàlla waxoon ñu ne na tuub na tuubal seen borom su ngeen ko defee man yàlla lu di xéewal danaa ko wàcc ci seen kaw danaa leen wàcceel taw bi danaa leen naatalal suuf si danaa leen may ay njaboot kon lépp yàllaan ko dëxañ ci biir tuub muy fukki fan njéggal yoo xam ne mi ngi diigaale ci biir koor gi yàlla defal ñu ci fukki fan yoo xam ne ci la ñuy gore ci safara ndax fukki fan yu mujj yi yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci lim ñu wax mooy def ni guddi gu yàlla dina jéggal juróom benn fukki junni yoo xam ne wala juróom benn téeméeri junni yoo xam ne safara moo waroon ci ñoom guddi gu jot yàlla dina ful lu tol noona juróom benn yoon wala juróom-ñaari yoon mbaa ba fu ko soob kon yàlla am na lu mu ñu bëggal ci weeru koor jagleel nu ko euh, mbokk yi nag weeru koor ngëneel yi ci nekk bokk na ci wér gi ciy jële soo ko yëgee ak soo ko yëgul bokk na ci ay ngëneelam mooy yàlla bu ñu examiner xel bind doomu aadama ba noppi war ci dugal appareil yi mu ci war a dugal pour nit ki mën a demal boppam yàlla dafa consulter xel bi mu leen consulter ne ko ñëwal mu ñëw mu ne ko demal mu dellu yàlla ne ko yow la kan mu ne ko jàmbu bu lot bu amuli pexe bu néew doole bu amul sañ-sañ bu mënalul boppam dara yàlla nit ki li ma ko doon doyee mat na ko ne ko man la kan mu ne ko yow la buur bu tedd buur bu baax buur bu bari yërmande mu laaj ko ne ko kon da ngay ma jël la teg la ci bopp parce que xel moo féete kaw ca la yàlla jële bakkan consulté ko ne ko yow la kan bakkan ne ko man daal maay man mu ne ko man la kan mu ne ko yow daal yaay yow yàlla ne ko loolu taxul ma woola de dama bëgg nga wax ma man maay kan wax ma yow yaay kan bakkan ne ko man maay man yow yaay yow mu mel ni seen wàqante ba xaw ca bari torop euh, yàlla ci mbaaxam mu jël bakkan dugal ko ci géeju safara mu diire fa ay at yu bari génn yàlla laajaat ko lam ko laajoon mu tontuwaat ko lam ko tontu kon dafa mel ni pareegul yàlla jëlee ko fa dugal ko ci geneen géeju mbugal mu def fa ay at yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala ci mbaaxam mu génne ko fa laajaat ko mu tontuwaat ko la mu ko tontuwoon ñetteel bi yoon yàlla sóob ko ci géeju xiif mu diire fa ay at yu bari bi mu génnee yàlla ne ko yow la kan mu ne ko yëg naa ne man la jaam bu lot yëg naa ne man la jaam bu néew doole yëg naa ne man la jaam bu amul sañ-sañ ci boppam yàlla ne ko kon bis ni ki tey farataal naa ci yow ne nañ lay xiifal buñ la bëgg tëgg euh, ngëneelu xiif wala ngëneelu koor bokk na ca sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon yaa maasara sabaab man istataa minkum al baata falyatazawaj euh, fa in lam yastati fa alayhi bi sawmi fa inna lahu wijaaun yonent sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon yéen sama ndawi umma wala yéen ndawi lislaam maa ngi leen di sant ku ci mun te denc soxna ci yéen féete woo koor ndax dina damm ab jësam ci xool lu mu warta xool dina ku ci mun te denc soxna na nga na nga na na nga na nga taqoo koor parce que dina dagg sa géeju bànneex yi nga waroon a am yépp parce que ku woor am na leneen lu mu tal euh, mbokk yi bokk ci fadailu Ramadan. mooy benn bu baax boo ci def dañ la koy fulal di weer woo xam ne war nañ ci baagante di ci jaamu di ci di ci jàng alquran war nañ koo baagante di ci baril suñuy rakka war nañ cee baagante di ci bari suñuy nawaafil mbokk yi weeru promotion la parce que benn boo ci def dañ la koy fulal te tilaawatul quran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon benn xaraf bu nekk dañ la koy fay fukki yoon ñu ne ko naka lañ la koy fayee fukki yoon mu ne alif xaraf la yàlla dana la ci bindal fukki yiw laam xaraf la yàlla dana la ci bindal fukki yiw kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci lim daan jaabante ak jibril di ko wax weccoo ak moom mooy daan nañ jàng alquran ci guddi weeru koor ba baa koor gi jeex mbokk yi di weer woo xam ne ci la yàlla wàcce alquran ndax nee na chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqaan fa man shahida minkum alshahra falyasum wa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin uxar waaye lum ñu ca tegal ci yërmandeem yuridu llahu bikumul yusra waaye wala yuridu bikumul usra mbokk yàlla nee na weeru koor wi man seen borom ci laa leen wàcceel alquran alquran joo xam ne lumière la boo xam ne bi mu reflété ci lëndëm gi ku réeroon ku ne mën na la orienté nga jub mooy jaa mooy mooy mooy bi nga xam ne moo feccale diggante dëgg ak caaxaan alquran jooju mooy téere bi nga xam ne mooy waxi yàlla yàlla wax ne képp kenn ci yéen ku fekke weeru koor na ko woor koo xam ne da nga feebar wala nga nekk ci tukki na nga leb fan yu toll ni la nga tukki mbaa nga feebar ko soo tanee nga fay ko moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ni yàlla jox na ma hadiya ci weeru koor mooy ku ciy tukki na nga leb parce que yiw nekkul ci woor ba noppi di tukki mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen topp suñu jataay ci sukran ci seen émission bi ñu leen koy ci seen télé bi ñu leen koy defalee muy mi midi point net bi fadilati imamina wa cheikhina alxasan sen ayadahu llahu wa nasarahu yal na ko yàlla defal jàmm te defal leen ko te defal ñu ko yàlla nangul ñu suñu koor nangul ñu suñu jaamu yàlla nangul ñu nawaafil yi di gërëm bokk yi nga xam ne ñu ngi topp jotaay bi yépp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu